yéen yàlla xëy ci xasida yi waxuma tawfeex waaye da ngeen am xaas tawfeex ju ànd ak xaas la santen ci yàlla bu baax te ci kenn mag secret baa secret baa ngoog sëñ bi xasida yi moo gën a gaaw moo gën a gaaw ci jege sëñ bi moo gën a gaaw ci am ngërëmal sëñ bi moo gën a gaaw ci defaru doomu waaw incha allahu kon bala ngeen di teewlu rek xasida googu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 li nga xam ne moo di ay njëriñ wala aw yiw lu mu ci mën a doon rek mbindeef yëpp buñ bokkoon di ko fanq kooku mënuñ koo tere de waaye suñu borom bu la bëggoon a xañ aw yiw ba noppi teg si yow aw lor mbindeef yëpp buñ bokkoon bëgg koo fanq itam kasaalika te neexut suñu borom du mën a am de moo tax nee na kon fu ngeen déggee rek ma wax tafsir laa ilaaha illallaah ne suñu borom woomatal na ma ko rek fu mu mën nekk lu mel ne la waxoon ne yaquudu li haysu akoona laahu tafsir laa ilaaha illallaah nee na loolu mooy wa in yuridka bi xayrin falaa raadda li fadlihi de kon nag kenn mën koo delloo de gannaaw ba ko yàlla joxee rek mbégum laa ilaaha illa mooy koo xam ne dootu gisatu wennaw naqar kenn dootu ko lorati suñu borom dootu ko lorati mukk mukk mukk mbégum rek mbeg rek ci lay dëkk ci waxtu ne de ndax yàlla moo ko def noonu moo tax mu ne xaada womat na ilee jëmee ci man bi nabi ci darja yonente bi allahu yàlla moo womat mooy faañel ji lan la womat mu ne bisara laa ilaa illallah mbégum laa ilaa illallahu de mboole mbégte yi nga xam ne bisaara yi nga xam ne ñoo nekk ci laa ilaa illallah kenn xamul toll ak kéemaan yi ca nekk nee na sunu borom womat na ko jox ma ko ci darja yonent bi sallallahu alayhi wasallam de maha farna tawajjuhal asa jublug lor lii ci man asamadu yàlla mi nga xamee ne mooy kilifa ga ñëpp jëmale ay ajatu jublu aj jëm ci kenn far na ko xablu ci lu jiitu ba ma nekkee ca géej ga ca tukki ba faree na ko bi man ci dara jaay ka nga xam ne foo moom annabi mooy ko yàlla solo ka Muhammadu turo mooy Muhammad de nee na borom mi tudd Samadu mooy kilifa goo xamee ne ñëpp ko jëmale ajatu jublu aj jëm ci kenn nee na lépp loo xamee ne lor la woon ma doon ko jànkuwante ci géej ga sama digganteeg nasaraan yi suñu borom fàttaloo na ma ko loolu mooy far na ko mooy infacé na ko dindi na ko mooy fàtte na ko lépp rek daf ma ko defalee ci darja yonent bi nga xam ne bokk na ci turam ya mooy Muhammadu ak nabiyu de yente yi dana jublu ilaa si waaye dab joom ci ku dun man a dajaalu ka nga xamee ne mooy dajaal ba de wa kulluma ak lépp loo xamee ne waa laxu dana ko méng wal aw jaali ak li nga xamee ne mooy njàqaree de nee na dana jublu jëm ci ku man dajaalu buñ ne rajulun dajaalu mooy koo xam ne nag kasaabun xaddaaxun moo ko xam ne fen rek ak mën a naxe mën a wore rek mooy mbiram loolu yëpp ci njabootu dajal lañ bokk waaye dajal seen seef nag boo déggee ñu ne monsieur dajal mooy ko xam ne saa bu ñëwee yàq rek ak fen rek ak nax nit ñi rek di leen gëm loolu mooy yàlla amee aljanam amee safaram kooku mooy monsieur dajal mu géntuwul jamono lay dikk waaye nag yegg si na mën nga ne bi teel yi génnee rek monsieur dajal lañ léeg-léeg gis ku nekk ci bi sax di ak yonentu ba noppi nag te ñi bàyyi ko noonu de te ci tel yi rek la ko ñemee waxee de kon loolu yëpp musiba da jàll de mooy koo xam ne day fen te la fen dara doonul ci dëgg lu nax nit ñi rek gëmloo na leen damaa xam lu fàddu gëmloo na leen may yàlla gëmloo na leen may tu loolu yëpp ci xëy da jàll de mooy koo xam ne day fen rek di nax nit ñi moo tax mu ne yant yi dana jublu ila si waaye jëm ci ku dul man a dajaalo ka nga xam ne mooy dajaal bare mooy koo xam ne fenaakoon la di naxaakoon ci waxtu ne ak lépp loo xam ne dana ko méng wala aw jaalu ak njàqare de dajjaal mën nga ko déggee iblis kon iblis dana daw jëm ci ku dul man ak képp koo xam ne mi ngi nag moom di njabootam ak lépp luy xeeti njàqare man sëñ Tuubaa mucc naa ci de ci gàttal daal lépp mucc naa ci batta teqale na al ilahu yàlla muy buur bi nabi ci darja yonente bi sarmada faw bay nii sama diggante wa bay na kulla ma lam yuxmada ak diggante lépp loo xam ne sante sut ko moom yàlla de nee na suñ borom moo teqale sama diggante ak lépp lum gërëmut ak lépp lum santu rek mooy duma dem ca lam santut mukk waxtu wu ngeen ma gisee rek maa ngi ci yàlla gërëm te sant ko moota moo tax suñu borom moo dox sama diggante ak lépp loo xamee ne sant ko de moom yàlla. tawaafu man laa yaxbudu laaxantaha ila siwaaya wari daali sontiha tawaafu man waroon toog ki nga xamee ne laa yaxbudu du jaamu mukk allah yàlla kooku waroon toom intaha dana jublu ila siwaaya jëm ci kurun man waso wasawantiha ta borom ak jublu lañ lii ci man ari daal li nga xam ne moo di sama ngërëm de moo di ngërëm de. ñenn ki nga xam ne day fu mu toll day wër te du nangoo jaamu yàlla fu ne rek mu taxaw fa fu mu wër fa loolu bëgg waxee rek iblis la ak mbokkam iblis ndax iblis rek mooy def noonu ak iblis réew mu ne ñu dugg fa di cofir cofir ti réew mu ne ñu dugg fa rek di cëfar cëfar yi te defuñ fa dara lorut ak yàq rek jaamu yàlla yóbbuwul leen fa te yàlla nee na fu ngeen dem rat na ngeen ma jaamu fa iyaaya fax bu doon yi fépp foo xam ne nekk ngeen fa suuf sa daal di xat inna ardi waasi'atun la yàlla wax fi ay fan bu doon yi waaye am na ñoo xam ne suuf suñ dem rek yàq leen fa tax a jóg nee na warantoo xamee ne ñoom ñëpp dañuy warantu rek di dox te ñooñu duñ nangoo jaamu yàlla mukk fuñ mën a dem noonu duñ ma jublu de waaye nag li nga xam ne moo di ngërëm buy bàyyi ko suñu borom ci waxtu ne borom ak jublu la ma de tawaafu man warantoo ki nga xamee ne laa yaxbudu nanguto jaamu mukk allah yàlla kooku intihaa dana jublu ilaa si waaye jëm ci kurun man de wasa woon tihaa borom ak jublu lañ lii jëm ci man ari daal li nga xam ne moo di ngërëm de fu ma toll rek waaw ngërëm moo may jublu rek ak ñi nga xamee ne bu ñuy warantu lu baax rek leen ñor ñooñu ñoo may jublu de man tudd na ma sell ak buur ba nga xamee ne asama musal na kulliyati sama lépp ilal jinaani ba rek may tàbbi aljana abdan mbir moom may aji jaam abdan mbir moom may jaam bii ca moom muxtasima di aju ngooy ca moom de nee na tudd naa sell borom mi nga xamee ne lépp lu bokk ci man rek suñu borom musal na ko ba rek may tàbbi aljana lépp loo xam ne dañ naan man sëñ Tuubaa maa ko moom ñi ma koy askanalee suñu borom musal na ko ci tolof tolof yi adduna ak nax-naxi adduna ak gàkk-gàkk ya lépp suñu borom musal na ko ci de man daal suñu borom def na ma ma ak jaamam boo xam ne waxtu ne day ngoy ci moom rek te du gestu leneen lu boromam subhaanahu wa taala moo tax ma ne tudd na ma sell ka nga xamee ne asama musal na kulliyati sama lépp ilal jinaani ba rek may tàbbi aljana de abdan mbir moom ma nekk ab jaam bi ci ca yàlla moo tax si maa di aju ngoy ci moom boo xam ne waxtu ne day ngoy ci boromam loolu mooy jaam waaye buñ ne jaam nekkul jaam boo xam ne heure bu ne adduna rek ko tax a jóg wala mu defee ne lépp mbindeef yi ca la nekk mu wulis boromam te lépp lu mu bëgg rek yàlla moo ko moom moo koy joxe lépp loo xam ne lu ñuy xëñe la nekkut ci mbindeef yi ñoo koy xëñe yàlla moo koy joxe de xaniitu doylu naa billahi ci yàlla ma xam ne bii ànd ko yonente bi waaye koonu te dana nekkal lii ñeel ma bii ci darja yonente bi mardiye ci li nga xam ne mooy la ñu gërëm de nee na doylu naa ci sama borom ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam yàlla rek lay jaamu moom lay ñaan waaye nag tawsul nag ci barke bi ci laa koy defee loolu mooy xaniitu billahi maax na bii suñ borom ci waxtu ne daf may nekkal ci darja yonent bi ci yi nga xam ne da koo gërëmal boppam de moo tax ma ne dana nekkal lii ñeen ma bii ci barke bi yonent bi mardi ci li ne da koo gërëm moom yàlla de waxtu ma ciy nekkal di ko tëbb di ma ko defal la di ma ko xéwale de fustu tuufu naa bi xismatin ci ak mucc minal akdaar yi ci lépp loo xam ne xeeti nax-nax la fi haasi daar yu nekk ci gii kër gii di aduna watil ka daari ak góogale kër di ëllëg yomal de nee na tuufu naa ndax lépp loo xam ne nax-nax la yu nekk ci àdduna wala ëllëg yomal xiyaam suñu borom subhaanahu wa taala musal na ma ci mucc naa ci nax-nax yi àdduna daal li mu fi daj yëpp moo di ak sell ak mbégte ci waxtu ni ci lay nekk waaye nax-nax yi àdduna ak ëllëg ëllëg yomal xiyaam kooku mucc naa ci de yal na yàlla muccal ñu ci yéen it yéen ñu koy déglu yal na yàlla musal leen ci nax-nax yi àdduna yi yal na yàlla musal leen ci nax-nax yi alaxira ñu nit na nu ko defal te defal ko mboolem julit bi jaay sidi bu jox sallallahu alayhi wasallam ko defalee borom Tuubaa de rumtu sàkku naa billahi ci yàlla bi nabi ci darja yonent bi safwaan li nga xam ne moo di ak sell de wa amanan ak assurance te muy sécurité wa busaran akuk mbégte wa xafwa akuk baxal nee na maa ngi sàkku ci sun borom ci darja yonent bi ci laa ko koy dagaane mu may ma sell mooy sama waxtu yëpp sama jamono yëpp sama bëccëg yëpp sama guddi yëpp sell mooy mu mucc ci lépp loo xam ne safaanuk sell la muy ay nëx-nëx de waaye assurance mooy mu mucc ci balaa yi ak fitna yi boo déggee assurance mooy koo xam ne day daw balaa di daw fitna suñu borom musal ko ci loolu la waxoon ci xasida limaahin basirin ataani amaanu min balaa in wa fitnatin nee na bi ma amaan ci laa am sécurité dégg nga mucc ci balaa yi mucc ci mboolem fitna yi suñu borom fegal ma texee di fexal ma xiif fegal ma ñàkk fegal ma li nga xam ne moo di ak rafle de kon doomu aadama bi amee am na lépp waaye nag mu ne maa ngi sàkku ci daraja yonent bi ci yàlla li nga xam ne moo di mbégte mooy lay safaanam mooy naqar ku nekkul ci mbégte rek yaa ngi yaa ngi am naqar maa ngi saako itam ci yàlla ci darja yonent bi li nga xam ne moo baxal baxal buñ ko waxee mooy koo xamee ne suñu borom dootu la toppee dara xataa doonte gis na la sax ngay def safaanug loo xamee ne moo la ko digal waaye nag yegg nga ci yàlla foo xamee ne booy def yenn ci rëcc ci dala koy baxal du la ko toppee loolu bu dee ci yonentu mooy jukkoo makaaramul axlaax nga xam ne lu ko waaye def lu ne rek kooku lay gën a jokk sax xujil xafa waamur bil urfi wa'rid ani jaahilin la ko yàlla wax de wadurumtu dana ma sàkku bi laay ci yàlla bi ne bii ci darja yonent bi safa ak sell wa amanan ak sécurité wa bu soran akum bégte wax fa akum baal kon daal ñeent yi dama koy sàkku ñeenti yi nag ci la lépp nekk am sell am sécurité am mbégte am njëggal loolu moom boo ko amee sóor na baax na sa ëllëg yomal xiyam baax na sa koor yow yàlla muy santaakoon bi kon naga nga nekkal lii bi wàcc ci sa jëmm ji alkarim ji daa ji tedd bi bu soriñ ci mbégte waraqadin ak yaatu dund goo xamee ne lay sa tërim du dog mukk de mooy du jeex de yow yàlla mi nga xam ne yaay santaakoon bi bokk na ci turam yi mooy lu waay def lu ne moo koy sant su ko waay sante mu dollil ko turam yi ci la koy dolle gannaaw ba ko waa ji sante moom moo koy dollil ci waxtu ne de mu ne maa ngi la ñaan man sëñ Tuubaa nang ma nekkal ci xàq sa jëmm ju tedd ji rek ci mbég ak yaatug dund raqat mooy koo xamee ne fu la neex bëngeen fu la neex dund maanaam da ngay am dund gu naat lool dund gu xéewal lool dund gu yomb lool kooku mooy raqat kooku la suñu borom waxoon sayyidina Adama ak sayyidatuna Hawa naan wa qulnaa yaa Adama uskuna anta wa zawjukal jannata wa kulaa minhaa raqadaa haysu shi'tumaa wa laa taqrabaa haazihi shajarata fatakuunaa mina saalimiin kooku mooy raqat de mooy dund gu naat te yaatu mooy koo xam ne daal dundam du jeex mukk mu ne kon nag yàlla nag ma nekkal ngir sa jëmm ju tedd yi ci mbégte ak yaatu dund goo xam ne du mukk mooy du jeex mukk de moo tax mu teg ci loolu ndax raqadin mooy dund gu naat goo xam ne du jeex mukk ba ëllëg yawmal qiyaam ci aljana yi rek ci ngay dund de safi na nga sellal xumri sama dund li wàcc ka ngir sa jëmm ji alkarim ji daaji tedd min kadrin ci lépp luy nax-nax yaa sal wara yow yàlla muy borom bindee fi wal amri ak mbiri de yow yàlla dama bëgg na nga setal sama dund ba bépp nax-nax rek dana génn ci sama dund sama dund gépp day sell na nga ko def ngir sa jëmm ju tedd ji de yow yàlla mi nga xamee ne yaay ki moom bindee ba noppi moom xaalamul amri yi alaa lawul xalq wal amru xaalamul amri yi mbir yëpp suñu borom leen moom waaye moom yëpp moo leen moom ak nit ak jinn yëpp moo moom de mu ne ko nag du ma nanga boole dégg nga li sax yi saabixin jëmee ci jëf yi way jiitu ña al awlin ña da way njëkk sax yi sama jëf ji wa basir yàlla na nga bégalee bii ci sama jëmu ji jami al akamlin mboole woy mat ña de mu ne damaa bëgg na sama jëf ji mooy xasida gi la ci jublu mu ne yàlla na ko boole ci asaabixoona lawloona buñ ko waxee alquran da ciy jublu al muhaajiroona yi ak ansaar yi muhaajiroon mooy ñi gàddaaya màkk ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa ñëw fekk madina waa ansaar yi ñi di leen fat di leen dimbale ñooñu mooy baynal muhaajiriin wal ansaar ñoom ñëpp am na leen aljana wala si na haajuroo fi sabilillahi suma qutuloo aw maatu la yarsuqunahum laahu risqan hasanan wa inna laa lawa xayru raasiqina fa fekk itam ñoom am nañ ngërëmal suñu borom te aljana lañ jëm de mu na kon xasida gi dafa mel ni dafa bokk ci jëfi ñooñu nga xam ne suñu borom da ko ciy dimbalee waaye mu ne ni nga bégale ci sama jëmu ji mboole way mat ñi de koo xam ne moo xam awliya ul kumal yi la moo xam yonent yi la moo xam malaayka yi la képp ku mat rek kooku boo gisee sëñ tubaa da nga ciy dangay da ngay tiituroo sëñ tubaa da ngay ndamoo sëñ moo xam saxaabi yi la ba ci bi sax day bégloo sëñ day tiituroo sëñ tubaa defe naa ne yonent bi fu muy tiituroo sañ tubaa kooku keneen taxul ñuy wax de malaaka taxul ñuy wax leneen lu dul malaaka taxul ñuy wax mu ne dumba na nga boole dégg nga de sax yi sama jëf ji muy xasida gi li sax yi saabiqiina jëmee ko ci jëfi way jiitu ñu al awlin ña di way njëkk ñi de te loolu mooy asaabiquna lawloona de mooy muhajirin ak ansaar ya wa basir yàlla na nga bégale bii ci sama jëmu ji jameel ak malin mboolem way mat ña de sukuri sama cant taqabal nang ko nagu yaa sa koor yow mi santaakoon bi wax mi ni yàlla nag ma xaar ilal jinaani ba keroog may tàbbi aljina bil mi naa bil mu naa ànd koog li nga xam ne moo di samay mbébét ci waxtu ne nga di ko jox wala amani waaye ànd koog di ma defal sécurité de yàlla yi ma lay cante nang ko ndax yow kat yaay kon bi yow boro bi subhaanahu wa taala de waaye nag ma aar mooy bu ma dara lor ba kerek may tàbbi aljana de te li may mbébét lépp ba kerek may tàbbi aljana nag ma ko defal waaye nag ma defal sécurité ba kerek may tàbbi aljana ci waxtu wu ne dara du ma lor moo xam balaa la wala fitna yëpp nag ma ci musal de moo tax mu ne samay cant nang ko nangu yow mi cantaakoon bi waaye nag ma xaar ba kerek may tàbbi aljana ànd koog ma jox samay bëgg-bëgg sama mbébét ànd koog di ma defal sécurité de maa ngi tuub ileeka jëm ci yow al yow ma tey ji faqbali yàlla na nga nangu almataab tuub ga de waxabta yàlla na may lee ñeel ma bi xaqi wàccika ci xaqi sa jëmm ju tedd ji alkitaab téere bi di alquran de yàlla maa ngi tuub di dellu ci yow kon nag dama bëgg nga nangu tuub bi de ndax sun borom moo digle tuub waaye ba tey mooy nangu tuub san bi wa qaabili taw bi de dégg nga kon yàlla nee na may jéggalaa li nga xam ne moo di bàkkaar ji waaye nag ki nga xam ne dafa jéggalu ba noppi ma jéggal ko mu tuub dellu ci man man yàlla maa koy nangul de moo tax sëriñ bi jëfandikoo lool de yàlla maa ngi tuub dellu ci yow tey jii kon nag dama bëgg nga nangul ma sama tuub maa ngi lay ñaan ci àq sa jëmm ju tedd nga may ma téere bii di alquran de mun na xëywee nga alee ci man àdduna diiru jamono bi safa i li nga xam ne moo di ak sell de gis nga baatab safa yi lim ñëw ci xasida gi bëri na wane ne kon xasida gi ku koy jàng suñu borom dana la musal ci jafe-jafe adduna yëpp ak nëx-nëx yëpp ndax taggu rafet la mbubu su rafet la soo xamee ne saa boo koy jàng yonent bi salaat sa mi ngi ci bég mbég moo xam ne du ci yokk du bëgg mukk nga bàyyi jàng gi ngay jàng xasida gi de waaye wal tux ni nii yàlla nag ma doyluloo bi suufi ci ak wér xan si fay wuli si may wuti ay médicament maanaam daal ay garab yoo xam ne ay per yoo xam ne dama koy naan wala saafara yo xam ne dama koy sangoo wala ma di ko naan maanaam daal yàlla na ko defal ak wér ba du tal li nga xam ne moo di fajog dem ca daptoor yaay te loolu yëpp ñaan bu nangu la suñu borom defal na ko de mu ne suñu borom nang ma xéewale ci jëpp jamono ma am sell bu ma am benn jàngoro de buy jàngoro xol na nga ko dindi buy jàngoro jëmm na nga ko bindi diirug jamono rek nang ma xéewale loolu de waaye nag nang ma defal wér goo xamee ne maanaam du jar may wuti lenn loo xam ne dañ naan tawat naa di ko saafara déedéet kon nit ki bu wéree rek du tal dem dab toor du tal dem fenn wala tox ni nii nag ma doylu loo bi sofi ak wér xan si fay wali saafara de dégg nga yonent bi daan na ñaan yàlla yàlla nga ñu musal ci buntu dab toor yi ak buntu buur yi ndax ñaari buntu yooyu yu mat a muslu la de mu ngi noonu yàlla nag moo ko mooñaaleeg bindeef bi waaye nag du tee bindeef bi dana ñaan yàlla mu di ko musal ci yenn buntu yi buntu buur ak buntu dab toor de loolu moom bindeef bi am na ci frein ak droit kon xut na nga womat lii jëmee ci man dégg nga wala nga ne xut womat nga lii jëmee ci man xoloomal asfiya xam-xami tànneef ya kal awliya ni ki awliya uy wal xoloma ak borom xam-xam yi waasimte yàlla na nga dollee màggal lii ñeel ma nay liyaa samay may de xam nga lii yëpp ku ko yàlla may ku ne xam ne ne may yu rëy la asfiya i xasaf nañ xam saga awliya i xasaf nañ xam saga xoloma i xasaf nañ xam saga mu ne yàlla womatal na ko xam-xami yonent ya ak awliya uy ak borom xam-xam yi seen xam yi de xam nga lii benn bu ci nekk may la goo xamee ne gu màgg la ci ku ko yàlla may yàlla boole ñetti yëpp may ko ko te ñetti catégorie yi rek ñoo am ci nit ñi man nga ne yonent yi awliya yi xolama yi xut bu samaan yëpp ñu ngi ci biir awliya yi borom xam-xam yi nag mu ngi doonu kuy jëfee sa xam-xam rek xolama yi te nga bokk nee na xam-xam ba nga yor boo ko yëgee boo ko yëgul suñu borom jox na ma ko de kon amul lu jaam xamul amul lu jaam xam te suñ tubaa xamul ko déedéet du yonentu du ab awliya borom xam lépp loo xam ne jaam xam na ko rek suñu borom subhaanahu wa na ko sëriñ bi de waaye wali ansib na Eliya moom kooku geneen may la nga xam ne yàlla bi ko may lii ba noppi da ko may lu féete kaw loolu de bi moom xeebu dara te dafa bëgg lu bëri ci boromam subhaanahu lu rëy day a ñaanaat lu raw loolu sax de mu ngi noonu de moo tax mu ne waa sim yàlla nga doolee màggalal lee ma na Eliya samay may de lakka ñeel na la kott kott kott lakka ñeel na la kott kott yow yàlla xitaabi sama waxante ak yow alyawma tey jii may taarif xasida gi saa tawasuli mbir moom nag may borom tawasul bil muntaqa ci dara darajaay ñu tànn ka almuxtaari ka de kuñ tànn noori rasuli kay leerug yonent yëpp yow yàlla yow dong lay waxanteeg di la sant yow dong lay waxanteeg di la ñaan yow dong lay waxante di la wéetal yow dong lay waxanteeg di julli ci yonent bi di ko tagg yow képp laa amak ak affaire ci waxante ndax li wut yaa ma ko defal li may bëgg itam yaa ma ko mën a defal kon nag yow dong dong keneen bokkut yow kottu tey jii yow lay waxat waaye li may bëgg nag damay def tawsul ci dara daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne yonent yëpp seen leer mu ngi bàyyi ci leer bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam de mooy leer gi nga xam ne leer yëpp ci moom lañ bàyyi koo de moom nag leeram dafa bàyyi ci leeruk borom bi waaye nag lépp lu yàlla sàkkati ataaba ci arasa kursi sax seeni leer ci leer yonent yàlla Muhammad ci la bàyyi koo de kon nag ci yonent boobu ci lay xawsul moom moom la wax escalier maanaam kii yéeg jëm deuxième étage fi ngay dëgg sa tànk ba kere nga yegg loolu nag boo bëgg a dem ci yàlla nekku ne dangay gër gërgër rek di ñaan yàlla déedéet yàlla dafa bëgg ngay tawsul ne maa ngi lay ñaan ci barkeeb Sëñ Tuuba wala ci barkeeb yonent bi barkeeb mag ñu baax ñi loolu mooy tawsul boo bëggee yàlla gaaw lay nangul li nga xam ne moo di sax ñaan moom la drap bee xasida gu tudd dégg nga si ndiiti wala tuxutul mu dara yéene de yu mel ni moom mu yàlla li may wax nag mooy sit nii nag ma dolli bi hurmati nabi ci xormaay yonent bi xel ma xam-xam bu bari wala tuwa jeex te yàlla boo jëmalee li jihaat yi di jëmee samay wàllu sulma li nga xamee ne moo di ak lëndëm de yow sun boroom yàlla nag ma dolli ci xormaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam-xam bu bari de ndax yonent bi sun borom dana koon waxu rabbi sit ni alman kon moom it bu dellu ñaanaate yàlla xam-xam dagaane ko ci barkeb yonent bi dëgg-dëgg loolu lu mën a nekk la de mu ne yàlla lu ñuy wax lëndëm nag bu ko jëmale mukk sama wàll lépp loo xam ne xeeti lëndëm la wala xeetu tooñaange loolu yëpp yàlla musal ko sama wàll bo dum fi jublu de wala tooji tooji yàlla bul le li jihaati muy jëm sama wàll mukk sul ma li nga xam moo di tooñaange de maanaam képp kuy tooñ rek bu jógee yàlla bu mu jëm ci sama wàll mukk musal ma ci moom de alim ni yaa nanga ma xamal allahuma yow suñu borom xel man xam-xam boo xamee lam yura mosee fu ko gis mosee fu ko gis xattun mukk li xëyri ñeel keneen ku bokkut ak man walan yura te dee ko gis mukk ci luy ñëw li xëyri ñeel ku man de xam-xam yooyu nag mooy yu kenn du jàng bu dee bi xurmatu nabi alma mooy xam-xamu sariya xam-xam bii ñaan yàlla moo xamal ko ko nag mooy xam-xam boo xam ne kenn du ko jàng ci téere yàlla moo koy xamal doomu aadama bu ko neex yàlla am na ñu njëkkoon daan xamal waaye nag sëñ bi dafa ñaan yàlla mu xamal ko xam-xam boo xam ne ñenaan daan yàlla di xamal xam-xam yooyu sax bu ñu wérifee ci la way kenn mos ko am xam-xam boobu ci luy ñëw itam yàlla du ko mos a xamal kenn kon moom lépp lu muy ñaan yàlla day mel ni moom moom da ciy wéet sëñ Tuubaa dafa wéet moo tax bu ñaan yàlla day ñaan may goo xam ne bu ñëwee day wéet day xool loo xamee ne ci aduna kenn mosu koo am mu ñan ko yàlla day xool loo xamee ni itam jomb na keneen di am mu ñan ko yàlla su ko defee nag yàlla boole may ko loolu de mu ne xut na nga womat lii jëmee ci man kasfal awliya murikuk awliya uyi waxut na nga womat lii jëmee ci man xel ma siwaahum xam-xamu ku dul ñoom wajut te yàlla na nga tabi lii ñel bi faw si sama tuufu de sama texe de sama réussir ci lépp lu may bëgg de gis nga wax itam awliya yi nga xam ne suñu borom da leen wan kasfu te loolu yëpp ñi ngi ko mën a amee ci xam-xam mën a xam lu war a xew suba mën a xam seeni taalibe bu tooñee wala muy jëw ñi man koo jàjji mën a xaw mën xam mën a xam ñaar ñu ñaar ñu ñoo xamee ne seen diggante neexul ñu fexe ba jubale leen mën a xam mën a xam nga topp ko noonu ci wàllu xëy bu awliya yi yàlla da leen di wuñul li nga xamee ne moo di xëyte secret yu nëbb yi maanaam secret yi gën a nëbb suñu borom da leen koy wal ñi di ko xam sëñ bi nag dafa ñaan yàlla awliya yooyu cër boobu suñu borom jox leen ko suñ borom jox ko ko ci jëmmi boppam ji waaye ba noppi joxaat ko loo xam ne moom day wuuteeg la awliyaaw yooyu am de moo tax mu ne xut nangoo mat lay jëmee ci man kaswal awliyaa yi dañoo xasaf xamsa ga murikuk secret awliyaaw yi dégg nga de mooy yàlla dem gi dem ñoom awliyaaw yi ba yàlla di leen wan ci jëmmi boppam kem la ko neex donte mënuñu xam lépp yàlla wala yutoon bi seen minel mi loolu cër boobu suñu borom da ko dindi ci awliyaaw jox ko sëñ bi de moo tax mu ne waxut nangoo mat li jëmee ci man xel ma si yi ko du ñoom xam-xami ku dul awliya yi ku dul ñoom yónente yaa nga ca aqtaab yaa nga ca ñëpp ca nga bokk de kon bam ne awliya yi rek nga defee ne ñoom rek lay wax mu ne ku dul ñoom sax seeni xam-xam yi ak seeni kasfu ya seeni kasfu yëpp suñu borom na ko womat jox ko waaye mënu ko yàlla nag ma may li nga xam ne moo du tuufu de mooy lépp lu may bëgg a réussir ci de mu dellu tegaat ci ne tafadalan na nga gënal alayhi ci man bi saxaada li nga xam ne moo di ak texe bi xaqi wàcc ka ci xaqi sa jëmm ji di yow yàlla waqar xil xaada a xotteeku xaada ba tey na nga ma ci gënal de ba tey xam nga texe a yi am nañ ko yonent yi am nañ ko ñu baax ñëpp am nañ ko xam nga xotteeku xaada ba ci wëlu yi am nañ ko yonent yi am nañ ko Ibrahima bañ ko dugalee ci safara ci mu mucc ca lool mooy xotteeku xaada te loolu yëpp gis nañ ne sëñ Tuubaa def nañ ko ko ci géej ga waaye na ko yàlla defalee Ibrahima ak na ko defalee sëñ Tuubaa dañuy wuute kon loolu mooy gënal gi nga xam ne kon suñu borom da koo gënal ci kaw ñooñee lam leen defaloon ci xotteeku xaada lam leen defaloon ci texe suñu borom da koo gënal mel ku ko faral daal ëffal te fekk nag fi sëñ Tuubaa toll boromam fi boromam toll sëñ Tuubaa kenn ku nekk ci ñoom doon xarit sa morom doon soppi ci sa morom ba suñ borom di xamal loolu sëñ Tuubaa di ko defal de mooy gënal gi de kon cër boobu la de moo tax mu ne ko tafa dalal na nga gënal alee ci man bi saxaada ak texe de maanaam daal boo daan defal texe ñu njëkk ña ak ñuy ñëw nang ma gënal seen kaw de bi axi wajika càq sa jëmm ji waxarxal xaada ak xottiku xaada nang ma ci gënal ñëwee ña nga daan defal xottiku xaada ak ñi ñëw ñëpp nang ma gënal seen kaw mun na na nga xewi ali ci man bi bu saaraati samaan mbégteem jamono yëpp ilal jinaani ba rek may tàbbi aljana wal takun te yàlla na nga doole nekkal li ñeel ma bi amaan li nga xam ne moo di sécurité de yàlla dama bëgg nga xéewalee ma rek dégg nga de mboolem jamono ji seeni mbégte yëpp nang ma ko may man kenn de ba rek may tàbbi aljana de lépp loo xam ne mbégte la ci jamono rek may ma ko kon xasida gi dafa lamboo sant mujjantel gi yëpp man nga ne dafa lamboo sant ak ñaan may yoo xamee ne yu kawe kawe yu raar yoo xamee ne néew na ko dugg ci beneen xasida fekk sëñ bi di ñaanee nii de moo tax mu ne nag ma xéewalee mbégi mboolem jamono yëpp ba keroog may tàbbi na te waxtu wu ne sécurité bu ma ko manqué mukk waxtu wu ne rek del gën a dolli sécurité bi ma gën di ko am de hadiyati samay hadiya xus nang ko jël li na bi ñeel kañu soloo ka man ci sag tiranga yaa xayra man yow ngën ci koo xam ne ax naa danga doyluloo sab jaam bu neex fa yow wa man ak koo xam ne takkaramaa danga ko teral de mu ne suñu borom xasida gi nag hadiya la na nga ko jël joxal ma ko yonent bi nanga xool ci sa mbaax rek ci ngay xool jël ko joxal ma ko yonent bi yow mi nga xamee ne ku la neex doylu loo ko fa yow ku la neex teral ko fa yaw kon nag dama bëgg xasidi gi dama ko ràbb man sëñ Tuubaa di ci tagg yonent bi ak julli ci moom kon nag yow mi nga xam ne yow laa ci sant di la ñaan ci waxtu wu ne di la wéetal dama bëgg nga jël xasidi gi na ko casee jox ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam de ko loolu lu mën a nekk la de mu ne yow suñu borom farix na nga bégloo rasulullah yonentub yàlla bi bil xurufi ci xaraf ci xii yii laa wax de wajut yàlla na nga tabe lii ñel ma dëxra diirug jamono bil maxrufi ci lin nga xam ne moo di yiw de dama bëgg nanga nga bégloo yonent bi mboolem ay xarafam faagi xaraf la raagi xaraf la dégg nga de xalonk gi xaraf ga xaraf raagi siin gi waaw gi laam gi xasidi gi xarafam num bëree kenn xamul nuñ toll mu ne lépp na doon mbég ci yonent bi kon xasidi ku koy jàng yonent baa ngi bég de waaye na nga xam ne dañ mukk di tàggu yiw suñu borom de heure bu rek na nga xam ne boo koy jàng yaa ngi ci kaaraangeeg suñu borom yaa ngi amee ak sell yaa ngi yaa ngi ci yiw yi de lu gën a baax lu gën a yiw yaa nga ca de mu ne xut na nga womat li rasulillahi ñeel yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ñeel yonentu bi yàlla bi siinatil basar ka nga xam ne mooy taarum bindeef yi min jihati na nga womat mu bàyyi ko ci sama wàll maa loo xamee ne laa yu addu deesu ko lim mukk min bu sar ci ay mbégte de yéen yow suñu borom yonent bi nga xam ne mbindeef yi buñ demee ba rafet lu yàlla sàkk lépp mbindeefu ci gën a rafet nee na yonent bi mooy taar bi de mooy koddaay gi de yonent rek mooy taar bi ñëpp ñaaw yonent bi rek rafet sëñ Tuubaa nee na yonent bi rek rafet mu ne na nga womatal yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mi nga xam ne mooy taaru mbindeef yi mooy seen wàccaay moo tax góor bu gisee jigéen bëgg ko ngir taar ba dégg nga mu ngi noonu de lépp lu rafet rek ci yonent bi la oto yi lu ñuy rafet rafet avion yi bu ci yàlla génnoon leer gu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu daal di lëndëm kenn dootu ko bëggati de ci jand ko de mu ne nag loolu sama wàll ci lay bay ko loo xamee ne duñ ko li mukk ci ay mbégte maanaam mbégte yi nekk sama wàll ken xamu nuñ toll waaye damay bëgg na nga koy womatal yonente bi sallallahu alayhi wasallam muy bay ko sama wàll de nga xam ne maa moom mbégte yi waaye da nga koy delluwaat ci yonente bi sëñ bi lu mu am lépp da koo delloo yonente bi sallallahu alayhi wasallam de muhammadun muhammad sala yàlla na julli alayhi ci allahu yàlla baanaat wéer na péng li kulli xaqli ñeel bépp aji xelu xonlaahu kawem nga de nee na yonente bi yàlla yàlla julli ci moom moom suñu borom subhaanahu wa taala de nee na yonent bi nag ku am xel ku gam-gamle yëkkati gi ko yàlla yëkkati mu kawe mboolem bi ne fi de kaw nu abil xaasimi nekkuk bàyyi xaasim nooral anbiya di anbiya uyi baana leer na nañ ñi dégg nga la xayril asqiya yi ku dut way di ña al axbiya ña da way réer na bi salaay salaam mi nga xam ne moo juróon doom ji tudd xaasim koy dàkkantale abul xaasim kun yetu rek la laqab la mu ne nag nekkuk bàyyi abul xaasim di yonent bi nga xam ne doon gim doon leeru anbiya u yonent yëpp mooy seen leer mooy seen sëriñ mooy seen jëwrin nee na loolu ñëpp leer na leen de ba des ñu texee di nga xam ne dañoo réer de ñu moom dañ koy gam-gam de dañ koy sikk sàkk moo tax la leen dal dal leen muy texee di de waaye képp ko am xel te gëm yàlla nekk sa xol ak leer nee na da xam ne yonent bi mooy leeru anbiya u ya de kitaabu ahmada téerib yonent bi nasaxa folli na siwaahu budut moom de wa innahu ta moom téere bi la ñun saxaa deesul ko folli mukk bi xayri ñeel budut moom de nee na téere bi benn mantu ñëw folli ko de ta moo fi follee téere yu fi jiitoon yëpp téere yëpp da nga koy dégg rek ñu ne la nàng bi téere la waaye xamoo fam dalee ak fam yem déedéet xamoo lañ doon wax déedéet mukk loolu rek nga mën cee xam lenn te lenn la da koy dégg waaye téere bi di alquran nag yaa ngi jërëng moom bis boo xëyee gis jaay gi ñi di ko jaay wala yaa ngi ko yor te du mos a folleeku de beneen téere du ñëwaat ñi ne nañ bàyyi alquran déedéet wala yàlla toog ba yàgg na damay wàccewaat beneen téere dégg nga jox leen ngeen di ko jàng te ngeen bàyyi alxuraan ba pencam yàlla rek alxuraan moo fi nekk de beneen téere dootul wàcciwaat ni nga xam ne beneen yonent du ñëwaat beneen alxuraan dootul ñëwaat de kon téere moo folli bu dul moom te moom benn mënu koo folli de nabi naa sunu yonent bi kitaaboo téereem ba xat akamala matal na maa xabluhu la jiitoon wa xayroo ak lu dul moom xat jamala loolu rafetal na ko de dégg nga moom la firiwaat mu ne téere bi mboolem li fi jiitoon dafa ñëw mottali ko maa ngi ne téere ay xaaj-xaaj la ñëwoon rek doonuñu téere yu mat alxuraan moo ñëw mottali leen ba noppi doon borom taar bi maanaam bu fekkoon ne daal ab tabax la nga ne moo ñëw leso ko karo ko la ci kër ga yëpp mu nekk ci biir alquran de waaye nag bu ko defee nag bu fekkoon ne téere yi moom tabax bu ñu yëkkatee fondement rek loon woon waaye nag alquran moo ñëw doon jëmmi kër gi ñi kuule ko def ko lépp tabax ko ba mu yegg daal di ko bétonné ko ñu def ko rek ci kër gi de lépp loo xam ne kër laaj na ko rek ñu def ko de loolu mooy alquran noonu la wuuteeg yeneen téere yu fi jiitu de. moo tax ne nabi naa suñu yonent bi kitaabuhu téeréem bi akamala matal na maa qabluhu la jiitu ci ay téere yàlla wàccoon ci yonent yu fa jiitoon wa xayroo ak lu dul moom sax xat jamala mooy taaral na ko de moom téere bi moo taaral bépp téere bu fi jiitoon ko daay ga nekkoon ci ñoom rafet ga nekkoon ci ñoom mooy alquran mi doon bëgg a rek moo tax yàlla jox leen taar boobu de taslimu man sëlmalu ka nga xamee ne jàlla jomb na xan ahlil walis muy am ay soxna wawalat ak doom xalam ni abdillahi yàlla na ko dott ci ki nga xam ne mooy doomi abdillahi ji afdalil walad mooy ngën ci koo xam ne ku ñu jur la de nee na sëlmalu sunu borom yeex na jomb na walis muy am doom wala ay soxna mataqasa saahibatan wala waladan yàlla nee na du ma adapté àndaale muy soxna sàkka doom mu ne sëlmalug yàlla moom yàlla na ko yàlla julli ci yonente bi nga xam ne mooy doom ci abdullahi ji nga xam ne yonente bopp moo gën ci mboolem ku ñu mos a jur rek kooku mooy afdalil walad arsala yónni na man ka nga xamee ne laysa lahu déet di ko ñeel axat kenn ku faan ci ay nawle kan la yónni muhammadan mooy muhammad muhammad la yónni ci ñëpp de waxat kafaana te mbir moom fegal nanu man jaxat ñu di yàlla de nee na yàlla mi nga xam ne amul nawle lay sa loxo ku faan axat la de mooy koo xam ne amul kenn kuñ koy nurale wala ñu di ko nataal naan kii la niroog wala kuy toog moom di waxtaan ak moom nga xam ne mëntoon a ñàkk yàlla amul nawle de nee na yàlla moom nag moo yónni yónent bi ci mbindeef yëpp ba mu ko defee nag mboolem ñu weddi yàlla yónent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu leen fegal de gannaaw ba ko yàlla yónnee de mu ne ko faaliqu mu ne faaliqu woo naa yow mi nga xamee ne yaay aji xar pepp génne ca gàncax kooku la alxuraan di faaliqul xabbi wa nawaa dégg nga de ba tey dana tekk maanaam koo xamee ne mooy xar suuf génne ci nit ñëpp ñu ji seen borom ca pincam yàlla ma mooy ki nga xam ne mooy fekk jigéen mu def ci la ko neex mu def ci na ko soob mu def ci na ko soob ci ay programme am mu ëmb doom bam neex ko mu jur ko loolu yëpp kooku mooy faaliqu de mooy koo xam ne mooy indi guddi mu lëndëm kërës suba ñëw rek mu daal di fet rek leer naññi kooku mooy faaliqu faaliqu daal mooy koo xam ne mooy xar dara ba noppi génne ca lam cey génne de mën naa doon jigéen mën naa doon suuf mën naa doon pepp mu xar ko génne ci gàncax ni ki dugub boo ko jixee dugub yi day xar su ko defee gàncax gi sax ba màgg nag mu juraat yeneen gub yeneen gub yoo xamee ne day sakkan day gën a sakkan gën a bëri nga xam ne boo jiwoon benn pepp da nga góob benn gub bi rek téeméeri pepp ko loolu sekki na de moo doon faale ko woonaal yow mi aji xaar pepp génne ci gàncax sal yàlla nga julli abadan fawun wasalimaat asalmal ala si ci yonent bi nga xam ne taqdimuhu jiital gi nga ko jiital xat xolima xamis na ko de yow yàlla muy aji xar maa ngi la ñaan yàlla na nga julli ba fawte salmal ci yonent bi nga xam ne jiital gi nga ko jiital ci kaw mbindeef yépp loolu ñëpp xam la naafi yow aji jëriñi ji woo naa la sël yàlla na julli bi salaam gàndu ko salmal laxti taam xam ne deetu tëj mukk loxo di ko ñeel ala bat il kiraami ci kaw ki nga xam ne mooy tàmbali waaye way tedd ña wal xitaam waaye ba tey mooy ki mooy ki leen tëj yow yàlla muy aji jëriñi ji damaa bëgg yàlla na nga julli ak sëlmal goo xamee ne du am fu muy yem mukk mooy du mat duñ ko tëj mukk ci kaw yonent bi nga xam ne mooy ñu tedd ñi mooy seen tàmbaliwaay mooy ki leen tëj loolu tagg foofu la moo tax ma ne sëli yàlla na nga julli bi salaamin gànd ko sëlmal laxtitaam goo xam ne deetuk tëj mukk la di ko ñeel de moom julli ak sëlmal gi waaye ala bat il kiraam na nga ko ci kaw yonent bi nga xam ne mooy tàmbaliwaay way tedd ñi wal xitaab waaye mooy ki leen tëj de way tedd ñi fi ñu tàmbalee yonent bi waaye mooy ki tëj kon mënuñu génn yonent bi sallallahu alayhi wasallam de foofu la xasida gi mu indi tarjumaa ju mujj allahumma yow sunu borom maa ngi lay ñaan bi àqi wàcci laay ci àqi sa jëmu na nga jël wa salim tey sëm loolu barik ta doolik ak saxaabaam ya waxtu bi yàlla na nga bindal loxoo ñeel yonent bi sala yàlla na nga julli allah yàlla nga bindal yonent bi bu saaratan ay mbégte yoo xam ne laataan xotoo du dog mukk mooy du jeex mukk abadan faw bi kulli xarfin ci wépp xarafu min xurufi xaasil xasidati ci xarafu yi xasida amin yàlla nangu ñaan yaa rabal alamin yow muy borom bi néefi de subhaana rabbika tur na ma sell ak buur bi rabbil moom muy borom tedd nga amaay si walis lépp loo xam ko ko melal doom ak caaju wasalaamun jàmm alal mursalin nekk ci mu ne yow borom maa ngi lay ñaan ci saq jëmm ju tedd ji sa jëmm ji xam ne ju kawe tedd li ma ñaan mooy yàlla na sunu sang di sunu mooy Muhammad yàlla na julli ci waa ak saabaam ya yàlla na ko bindal moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbégte yoo xam ne du dog mukk ci yépp xaraf ci gi xasida de nga xam ne ay xarafam yépp na doon mbégte jëm ci yonent bi yàlla nga nangu ñaan yow yàlla mi borom bindee fi de tudd na ma sag màggaay tudd na ma sag sell yow jàmm yàlla nekk ci mboolem ku yàlla mosu yónni melu sax dàkk rafet aji sax la ñeel yàlla moom mi borom bindee fi de kon loolu mooy xasida gi nga xam ne ataaba dan koo dawal di ñaan suñu borom defal nu dégg ak topp defal nu tawfiq ak taysiir te fay ñu tiyaabay ku ko firi ak ñi nga xam ne déglu nañ ko ba tey ñi ko déglu itam yàlla yàlla fay leen tiyaabay ku ko firi ak ñi ko déglu bi jaay sidi wu jël sallallahu alayhi wa sallam wa axiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamina subhanaka laa ilma lana ila ma alamtana